mbokk yi noo ngi nuyu ñëpp di leen sant di ñaan borom bi subhaanahu wa mu defal nu tawfiq di ko gërëm ci def gi mu def nu gëm yàlla subhaanahu wa waaye mu defal nu xewal yónni ci noonu eh, afdalu xalqihi sayidul basar sayidina muhammad alayhi salaam ba noppi jox ko akmalu diin wa aqwamu sharia diini ji gën a mat waaye sharia bi gën a yomb a jëfee te gën a mat sharia yépp moo taxit fa kaanatil ummatu lati astaqat an tusamma al muslimin kon noo yelloo turu ñu tuddenu nag al muslimuun ngir gën a dëggal nag maanaa bi tax lislaam jóg muy baatub al islaamu xam ni ci xool lañ koy fas waaye cër moo koy jëf moo xam individu la wala ab société la islam mooy diina ji nga xam ni du <clears throat> diina ji toppatoo àdduna rek bàyyi àllaaxira <clears throat> du diina ji toppatoo àllaaxira rek bàyyi àdduna waaye mooy diina joo xam ni euh, ñaar yépp moo ko tax a jóg moo ko tax a jóg kon beneen xalaat bu ab jaam indi ci biir dund gi muy toppatoo àdduna rek àllaaxira yoonam nekku ci loola day manqué kon l'islam mooy diine ji nga xam ni moo làmboo maf omu laa ilaha illa muhammad rasulullah ndax bu jaam yépp bokkee xam gëm laa ilaha illa dañuy daal noppalu ndax benn buur bi ñépp bokk te moom daa yemale ñépp ku ne jox na sa moo sàkk ñépp am lu mu bàyyee nit ñi ñu bokk ñoom ñëpp xam ko la yàlla jagoo xam ko moom dong yàlla téyel boppam loola di ko defal boppam nit ñi bu ñu nangu dégg laa ilaha illallah kon lii am du am tey laa ilaha illallah mooy ruuxu xeet wii di lislaam mooy secret bi te li dëgëral lislaam ma ngi balle ci mbootum laa ilaha illallah moo tax mu mën traverse lii mu traverse ba limu jiite li mu gouverner moom lislaam ay siècle yoo xam ne waaye booba ña ko yoroon dañoo déggal mafhum laa ilaha illallah bii ñëwee ba ci année mille cent quelque yi ba xilaaf ak lislaam di tas 1924 ci Moustapha Kamal Atatürk kenn ku ci nag gis na ni booba bàyyi nañu déggatuñu wala jëfandikoowuñu li ñu yoroon muy mafhum laa ilaha illallah ah ñi nekk na ñoom ci jamono nag di seeni noon ragaloon jullit ñi lool ndax seenu bennoo ak seen dégg laa la illallah ba ñu ko wàccee di nguuru ak a noos la ñooñu daal di jóg nag def benn complot tas xilaafa gi nag jël ku ñu préparé Moustapha Kamal te ko fi muy tere noddu ci yenn heure yi am yu mu daganal yu xaraaman xalakul xaalim mbokk yi est-ce loolu kon nun ñii nun ñii fii nu toll nii est-ce kon waru xoolaat nii Euh, fi nu agsi tey ak fi nu toog lanu ko mayoon lanu ko mayoon daa mel ni daa mel ni dañ koy bëgg a ñàkk waaw daa mel ni dañ koy bëgg a ñàkk ndax fa lislaam toll woon ba Cheikh Omar di xare xarem yu bari yooyu ñu jële ko fii ak ñeneen ñi topp ci moom ñu jële leen fii topp ko installé seen nguur googu lu ne jaar fi chef de canton gi jaar fi sonal sunu baay yi sunu maam yi bëgg démb rek sama baay Thierno Gaye mi may nettali ma tudd benn dëkk mbiri na mu ni ma waaw 1960 nangam day ba ñuy dem di wuj ji ndax chef de canton ba fa nekkoon moo woote woon Daaru Gaye ndax bu jaam yépp bokkee xam gëm laa ilaha illa dañuy daal di noppalu ndax benn buur bi ñépp bokk te moom daa yemale ñëpp ku ne jox na sa moo sàkk ñëpp am lu mu bàyyeeg nit ñi ñu bokk ko ñoom ñëpp xam ko la yàlla jagoo xam ko moom dong yàlla téyel boppam lool di ko defal boppam nit ñi bu ñu nangu dégg la ilaha illallah kon lii am du am tey laa ilaha illallah mooy ruuxu xeet wii di mooy secret bi te li dëgëral lislaam ma ngi balle ci mbootum laa ilaha illallah moo tax mu mën a traverse li mu traverse ba li mu jiite li mu gouverner moom l'islam ay siècle yoo xam ne waaye booba ña ko yoroon dañoo déggal mafhum laa ilaha illallah bii ñëwee ba ci année mille cent quelque yi ba xilaaf ak lislaam di tas 1924 ci Moustapha Kamal Atatürk kenn ku ci nag gis na ni booba bàyyi nañu déggatuñu wala jëfandikoowuñu li ñu yoroon muy mafoomu laa ilaha illa allah ah ñi nekk na ñoom ci jamono nag di seeni noon ragaloon jullit ñi lool ndax seenu bennoo ak seen dégg laa ilaha illa allah ba ñu ko wàccee di nguuru ak a noos la ñoo ñi daal di jóg nag def benn complot tas xilaafa gi nag jël ku ñu préparé Moustapha Kamal teg ko fi muy tere noddu ci yenn heure yi am yu mu daganal yu xaraman xalakul xaalin bokk yi est loolu kon nun ñii nun ñii fi nu toll nii est-ce que kon warunoo xoolaat ni euh, fi nu agsi tey ak fi nu toog lanu ko mayoon lanu ko mayoon daa mel ni daa mel ni dañ koy bëgg a ñàkk waaw daa mel ni dañ koy bëgg a ñàkk ndax fa lislaam toll woon ba Cheikh Omar di xare xarem yu bari yooyu ñu jële ko fii ak ñeneen ñi topp ci moom ñu jële leen fii top ko installé fi sen nguur googu lu ne jaar fi chef de canton di jaar fi sunu bayi sunu mami, yi bëkk démb rek sama bàyyi cierno Gay mi may netti ma tuddu ben dekk miri na wa 1960 nangam day bañuy dem di wujj ndax chef de canton ba fa nekkon mo wote won daru Gay sama maam ak sama mam ak sama ak ak man mi nu ñëpp dem nañu am fa nangami fan ndax lan ab neeg lañ koy defaral fete ñu euh, euh, jafe nga xam ni booba ñoom dañoo nekkoon ci kaw nit ñi di nguuru mooy lii ngay dégg léegi nguur lekk naan la folliku day bette mentalement boobu nag walla boog dëgg-dëgg boobu ba léegi mi ngi ci ñii nekk ci kaw nekk ci suñu njiit ñi ëpp ci ñoom loolu lañu ñu yore mooy buñ ko waxul ñu ngi koy def moom ndax ku ci toog tuuti daal di am alal ju amul woon buñ calculer sa salaire du toll nguur lekk ak naan la folliku day bette ëpp naa wax mbokk yi nguur responsabilité la boo xam ni Omar Ibn Abdul Aziz ni mu meloon jekkoon lool am yaram daa sol soi euh, daa sol ay yëre yu seer yére yu rafet waaye bi ñu ko falee mu nekk amirul muminin yàggul dara dara dara Omar boo ko xoolee dutu ko xàmmee yooy mënatu la nelaw guddi jàq bëgg bëgg a delloo li ñu ko yan mu të ku jub waaye xool tey li ko loola jëral bu la Abu Bikrin ñu Omar ñu Ousmane ñu Aliyu bëgg ko caa teg mu nekk juróomeel bi ci am nañu rox digganteem ak Aliyu kon njub googu mbokk yi njub googu la ko joxoon mi ngi fi mooy application waaye mbokk yi jumtuwaay yi mi ngi fi ba lislaam demee nag ba ña ko jiite woon denc seeni jumtuwaay topp seen bakkan noon bi daal di dajaloo am doole ñëpp contre lislaam ñëpp nekk benn sof lislaam lislaam ci su boppam ñu xajale ay njiitam teg fi seeni nit nangu seen doole ragalloo leen ba lislaam mujj topp ci ginnaaw noonam yooyu kon tawata ngoog ju judd joo xam ni du gaaw a wir joo xam ni léegi kay nun waxuñu faj ko waaye nun ci muccee nun lislaam dese loolu la kay la ñuy wax la wax kon dund gu sell goo xam ni yonente bi aleyhi salaam wasalaam junjën nanu ko fii nu toll tey jii ndax waxoon na ni لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وصراعا بالصراع حتى لو أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم وأتى ولو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه رواه مالك بسند صحيح وأصله عند مسلم waxoon na ku dul juuyoo gu baree bare bari waaye jamono ngi ñëw di ngeen topp ah, yoonu ñi leen jiitu ngeen bokk ñoom fii ci àdduna tànk par tànk sebre ci ber par sebre waaw xasab par xasab ba di di ngeen leen topp ba ku ci dugg ci paxu mbëtt ngeen dugg ca di ngeen leen topp ba bu bu ngeen demee ba gis sax ñoom ñu mën a ñak kersa ba mëna ak seeni jigéen sëy ci kaw yoon wi ngeen def ko mbokk yi li mën nga ci loo xam ni mboolem loo xam ni ñi gëmul yàlla bu ñuy jullit ñi ngi koy def ci ak mbon jullit yi ñi ngi koy def bu dee ngor jigéen ñi ngi ci kon kay la waxon ni ah, di nga leen topp boobu bu ñu duggan ci paxu mbët génn ak doomu aadama ba def yëfu bàyyi ma sax ngeen topp leen ca loola xoola tey julli leen topp demal ci ilhaamu salaam yi Sëñ Tuubaa wax yu baree bare yoo xam ne topp nañ leen ci tey jii ci wàllu daganal njaaloog ci wàllu daganal ribaak ci wàllu euh, nekk ci àdduna ba noppi nga soog a ñëw fay sa bori julli ñenn ñi duñ ca jaar faf ñi ko mënta ñàkk def buñ koy def dañ koy gaawee ndax lan bëgg ñoo tar day rendez-vous bi donte li ñuy seetaan wala li ñuy def wala li ñuy bëgg a wax du jaamu yàlla l'islam nag moom biñ ko xeexee ba daaneel xilaafatul islam sikkal tamit li fi nekkoon l'islam wane ni day tardeel nit l'islam diiney tour deret la l'islam diiney delloo ginnaaw jigéen la l'islam nangam l'islam nangam l'islam nangam jële fi kilifteef wane ni wërta am ay nit yoo xam ni dañ leen di déglu kenn ku ne na am sa liberté def nit ñëpp ay mbooloo ay pàcc-pàcc indi ay xalaat yu bees xalaatkat yu bees yooyu gëmul diine ñu favoriser leen yëkkat ci leen ñu gëm leen topp leen al istirakiya ñëw socialisme xawmi ya ñëw al watani ya ñëw démocrate ya ñëw al xoriya ñëw wal falsafatu tatawaru lii di falsafa di gën a bu baax a baax a baax ba ci ilmaaniye mii tey nga xam ne lu nu dal looy lay wi nu ko teg moom ay shiaar yoo xam ni ay rumuus yoo xam ni yii ci la ci la ñu tàqalee lislaam jawal ci xol yi fexe ba defal ñu lavas de cerveau génn lu doon ngëm jaxase ñu indi système mu ilmul kalaam nit ñoo xam ne dañuy wax ci wàllu pas-pas te fekk du pas-pas boo xam ni ba Sëñ Tuubaa waxan muy pas-pas bu mucc ci an firran wa miria bu boobaa nag mbokk yi xañ na yàlla mi indi alxuraan di ko wattu day eh, yónni yonent bi alayhi salaam mu war a def ak nubuwaam ba bu fi jógee lislaam di continuer du yónni kaneen kon lislaam dafiy ne ba duna tukki moom waaye nag ah l'islam daa tàmbale woon ci tumuranke mooy par ay benn benn nit yu néew sonn lool waaye fa la jëmaat fa la jëmaat waaye bu boobaa nag texe ñeel na ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci coono boobu di résister di dund ci l'islam ba ba ñu faat leen wala ñu ñàkk lool wala ñu des ginnaaw lool amuñu àdduna lu ne ñu daj ko ba faatu ñooña texe ñeel na leen kon nañ bokk ci xuraba fa tuuba lil xuraba loolu la waxoon amuñu dañoo manqué ñu bare lu bare bare bare bare bare buñ ko xoolee ci suñuy euh, suñuy guide religieux yi nga xam ni tey fi l'islam si ci Sénégal ndax tubaab bi la mu bëggoon wala noonu lislaam bi la mu bëggoon kat amu ko cent pour cent ci réew l'islam yépp wax dëgg yàlla waaye am na fu mu gën a amee avantage Sénégal gii day amu fi cent pour cent la mu bëggoon waaye am na réew yoo xam ne mën nga ni am na fa lu mat soixante pour cent wala quatre-vingt pour cent wala cinquante pour cent ba xataa ci langue bi sax ni mu dominé yenn réew yu bari yoo xam ni amuñu langue bu juddoo ci réew ma waaye langue étranger lañ yor kuy wax ca ngay wax même booy wax ak sa doom sax doonte mu a bind français waaye moom ngay wax wala anglais loola moom dañoo bëgg seen seen langue yii lii sama xaritu séeréer bi di dëgg wolof lool ba munoo koo xam ci moom séeréer la ko dàqal wolof buy gis mbokkam daan may bàyyi ci àll ba xalaa ko laal boole nañ ci li ñuy wax xaswul fikri ah mooy xeex xare bi noonu lislaam di def léegi duutu xare jël ay ah, char combat ak jël ay déedéet déedéet ay système la système de vie lañ ñuy tegal Yohamni, xamni ak ñeneen ñoo xam ni dañ leen a jël yóbbu leen jàngal leen formé leen gëm leen loon ni lii si la seen àddunay baaxe ñi ñëw ñoomit rek kenn ku ci nekk kala yar moom ngay niru moom ngay niru ala kul alin ñaan suñu borom an yarudda kayda um feen xoorihim yàlla dëpp seen seen seen seen seen pexe yooyu ndax lan am na rijalan sadaxoo ma aadullah alayhi ñi yàlla jëmbat lislaam jaral leen saasu ne seen liggéey di wéy saa ne am ay benn benn nit yu fas yéenee jaar ci liggéey boobu ba léegi dékk lu bëgg ñëw lu ne yàlla yàlla dëgëral ñooñu mbokk yi nañu delloowaat xool suñu ginnaaw def njàngat Sénégal tey jii fii mu toll nii nii nuy tànne ndax ni lan war di tànne ki ngay tànn doo ko tànn ci tànniinu diine xool ba xam kii bu bu nekkee ndaw li la toogal ci pencum réew mi ndax dafay nekkal poosam wala dafay nekkal population bi ah tolleen ñu ëpp ci ñuy laaj baat fi ñu toll nii ñu ngi wax olof yu leer dugg ci nit ñi bu jaree toogal xale yi lañuy def ñu ànd ca xale yi dugg ci tataay yi yépp noo ngi koy gis te ñu ko gis ñu koy def xont bi la euh, bi ngay jox xar mi ngir bëgg bu tabaskee mu suur xar mi xamu ci dara nit léegi foofu la toll li ñu koy jox lépp dañoo bëgg aw carte yu ñu bëgg ci moom bu ñu ko amee ci moom bu ñu noppee cinq ans yépp ñu nekk ci seen donkaas yi ñoom ci kanam tuuti ñu daal di bokk am lu ñu amul woon daal di yor génn ci fuqaraax yi dugg ci axniyaa yi bàyyi la foofa yow iskale nga weesu nañ la alakul alin kon gis nga tànn nit ki responsabilité dañ koy bàyyi ak moom ndax yonente bi aleyhi salaatu wassalaam ba muy wax ni kullukum raain wa kullu raain masulin an raiyatihi kenn ku ci nekk yowee sa euh, responsable ci say mbir ndax yow lañuy laaj say mbir boo liggéey noo ko doxale téere bi du bàyyi dara dara dara dara loo jàppoon ni lii ba nga ko defee fàtte nga ko lii jërul enregistré waxuma enregistré waaye film lañ la yoon bu yomal xiyaam yi mbokk yi dañuy dekki de ñun ñëpp dañuy dekki ba xaqul kitaab xam nañ ko bu nu dekkee ci kanam borom bi kenn ku ci nekk di nga wéet sa borom ba nga jàpp ni yow nii sa borom wéete yow ak nii mu lay càmbare day xanaa yow rek la def nii ndax jàpp nga ni a ah, mbir mi xamu woon ni dina deme nii xamu woon ni dina deme nii li waroon bu ñu xoolee lislaam ñi laa jiite ñu tànni leen ak lu ñu leen mën a tuddee ñoom dañ daa tiit dañ daa woo bëgg ko fal moom mu tiit mu jébbale ngànt ñu di jox leen ko alislaam nee na nun sunu pal duñ ko jox ku ko laaj waaw olof nee na yónni ma yónni ma yónni ma joo gis bu fa yàggulit yàq fa de waaw yónni ma yónni ma rek waaw islam day bañ nga laaj ak pal nga laaj sama xarit sax laay jéeg yàlla dogal na ci moom laa jëkk a sànnee kart ci at mi mu war a nekk député 96 woolu na ma dem këram ànd ak sama benn magu daara mu xamal ni day taxawal parti nangam la koy tuddee jubluwaay baa ngi nii dugg ba ci njàngalem sëriñ bi eh, li mu wax ci nit ki suñetu la beru ak ki xëy moom mën naa beru ba ñu xam ni kii fi mu teg tànkam dëgër na ba ni mu fi jógee deux mille deux mille un deux mille deux musul changé position bi ma waxoon ci quatre-vingt-seize boobu waaw jullit bi kon war na ku euh, muy nommé di génne kartam jox ko kàddoom mu koy atteel mbokk yi lii du président daayira du euh, ku mën a wote ay projet de loi yoo xam ni dafa safaanoog diine la wala mu dëppoog diine la loolu lañ bëgg a fal moo tax lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la am nit ñu baax am ñu ah léegi kenn ku ci nekk nag yow xool sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala ba xam kii nga bëgg a fal dina la defal li nga bëgg ñu defal la ko ndax yow ab julit nga yow yow ab julit nga kon des na ci yow kullukum raain wa kullu mas'ulin an raiyatihi wallahi alazim ku ne responsable nga ci sa mbir kenn du la ko laajal kenn kenn duñ dem ci ka la ko laaj ko ko buñ ko ko laajal yow mi dañ la ko laaj xàmmee nga bu ñu waxoon ni jëlal sa loxo bii dugal ko ci taal bii ñi ëpp ci duñu ko def léew mi kat loo liggéeyati sa baay bi jox ko lépp bul denc dara sax loolu sax li muy jaadu jaadu ku ko sëb sëriñ digalan ñëpp duñ ko def laa wax ala kulli xaalin nag waxu digle wunu tere wunu waaw digle wunu tere wunu waaye dañuy jàngat ay tomb yu bari moo tax nu mel ni kuy jëkkante ak temps bi nii waaye mbokk yi euh, Cheikh Amadou Bamba lay bi mu ñëw ci Touba nee na euh, ñaari mbir moo tax ma ñëw Touba bi ma ñëwee Touba ñaari mbir laa fi fekk bi ma ñaari mbir ñoo ma fi fekk ñaar tax ma ñëw tuubaa dama doon daw nit ñi ak daw lii ne ci loxo yi nit ñi yoxo yi nit ñi bi ma ñëwee wit nde laa fi fekk ak saawo wit nde ak saawo bi ma euh, bi ñaar ñi ma fekk kenn ki yàlla dong dong ko yitteel waaye ki ci des àdduna dong ko yitteel waaw léegi euh, yow mi ne Touba yow mi nekkul Touba te tey taalu bi Cheikh Amadou Bamba jàpp nga ni jàpp melal ni Touba nga ne waaw ndax yow yàlla moo la yëkkati wala àdduna moo la yëkkati nga ne ma yàlla moo ma yëkkati kët ndax suñ Touba yàlla lañ koy toppee ah? ah waaw léegi nag bu ñu demee ba. dëkk bi am yu bon yu xaraam yu fi nekk ñi taxaw ni dañ koy dindi sax ñu sonal leen di leen diaboliser mayu ñu leen sax mayu ñu leen sax ah, doole ci ci ci ci li ñuy def li ñuy def ah, ndax bu boobaa kon yow da ngaa bokk ci ñi nga xam ni xanaa yàlla yëkkati wala yow mi dëkkul Tuubaa jóge ci àll ba ñëw di ko fi indi di ko fi dugalit yow yow xanaa yàlla boolu wala ak suñ tuba même ku dëkkul tuba fa nga nekk seet sa bopp ba xam ni yàlla moom ngay toppi suñ tuba walla adduna nga koy toppee mbokk yi yi suñ caaxaan yi bari na suñ yi bari na bari na lool lool bu ñu demee nag ba xàmmeetuñu nag ah ñi ñi doon wax ni ñooy sunu bunt ci sunu boroom ñooy sëriñ si xàmmewuñu ko ak ñii ñu ñoom kat ñooy ñëw ñoom di sàkku si ñoom yàlla bëgg ñu defar leen bëgg defaru ba suñ tuba daa wax naa ah amatuma jot demal boole naa la diw ndax defar nit taqoog moom la laaj te taqoog yu mënatu la nekk suñ tuba daa dem ba muy xamle ni àdduna ko ber xam nga dem ba boo jógee ci kër gu mag jëm si ci jàkka ji am ñu bëgg a gaañu am ñoo xam ne duñ mën a téye seen bopp bëgg laa laal ba am bis moom ñu nar koo gaañ ba ñu wutal ko nag mbedd am luñ ci samp ba fay jaar koko mbokk yi genn takko gi nga ko bam lay defar te loolu waxin la ci moom rek ndax koo xam lu na mën nga koo sol nit waa kul xaalin waaye war nañ caa jàng ni ginnaaw defar taqoo la laaj kon loola nu war koo xamal suñu bopp bu baax naa buñ doon fay naar bu xorom daal dina baax ndax cheikh amadou bamba daw nit ñi ak daw li ci li ci yoxoy nit ñi bi ko indee ci bar boo xam ni dafa jël la Matlabul Fawzayni wax lam bëgg ci dëkk bi ak ñim bëgg ñu dëkk fi ñooña buñ fi ñëwee ba noppi nag nim bëgg ñu nekke ko fi mu fàggul leen nag ci wàllu économie lépp lu lu baax na mab bu ñëw fekk leen fii loolu lépp yàlla indi ko lu ab dëkk taax di am mu ñëw nga xam ni booba aw yoon yoonu suuf sax amagu fi ndax boobu kenn musu faa dëkk ci nangami seekal tey nga dem ba euh, xalifaam bu jëkk bi di doomam indi raay bi tëli yi ñëw am foo xam ni hélicoptère yi dañ fay wàcc ngay yaakaar beneen yoon aéroport yaakaar nangam ci dëkk boo xam ne amul géej daara rek la woon daara daa barkeel donc gen kër la benn titre foncier la waaye yooyu yëpp yëpp yëpp danga koy yéem rek waaye yow sa bopp moom li nga nuur nemm nar di ko def muy ak ngaj sëriñ bi interdit ko woon foofu sablaat mbàkke ñëw def bu saayir bi jël ko teg ko ci loxol état ci jamono sëriñ Saaliwu safinatul amaan juddu taxaw waaye taxul mbir yi am na ci jëm yoo xam ne tey la wàllu gën a aay ah dañuy nax suñu bopp rek waaye iblis moom mooy jàmbaar mooy jàmbaar la mu waxal ni danaa dikke nit ñi seen ndeyjoor ci kaw ci suuf càmmoñ fu ne mi ngi koy réussir bu baax a baax a baax baax baax baax bu baax ak ku la mën a jur ak koo mën a doon nekk ci lu la neex boo dee dajeeg la la neex déedéet déedéet mbokk yi euh, waaye su ko defee gis nga nun nun ci suñu bopp nag fexe nañ ba am nañ ay kër yu baax am ko ci Touba am ko ci Ndakaaru am ay compte banque am ay oto bëgg a loolu ci àdduna waaw jan daara la ñuy joxoñ ci Touba ni mooy daara Cheikh Ahmadou Bamba jan daara na am nay daara de waaye daara junne de fii boo ko joxeñee boroom doo tudd Cheikh Ahmadou Bamba donte ay eh, eh, ak njabootam ku fi jaar ku ne wut nga daara joo ni ay nit génne na ca ba ci ay sëtam ak taalibe yi waaye dama bëgg a wax ni ah mi ngi développé ci wàllu jumaa yu bari nun noo ngi koy développé bu baax a baax waaw jumaa yi waaw waaw noo ngi koy développé ci wàllu kër sëñ Tuubaa yu bari waaw waaye ay jawaamia ay université ay jàngu yoo xam ni dañ ci boole xam-xam yi am njëriñ yépp langue yi am njariñ yépp ñuy jàng ci àdduna yépp Touba nekk kës bu ñu koy jànge mbokk yi nañ développé loolu jumaa yi macha allah macha allah macha allah ak jàkka yi kër sëñ Touba yi moom macha allah ala kulli alim kër sëñ Touba yu bare bare bare bari fere nañ ci day waaye ndax mi ngi amal njariñ ku ne mën naa tontu su bopp jamono Serigne Saalihu am na liggéey bu mu doon defloo eh, ay ay ay mbooloo ngi société bi dafay liggéey bi ba noppi mu ñëw won ko ko mu xool nag Touba fiñ fi dëkkeek fiñ fi dëkkewul ak eh, bokk na ci lem jàmbootoon mooy miir yu yaatu yi daal dem ci barab miire fa lu yaatu tëj ko bàyyi ko fa te kenn dëkku fa daal loolu moom jaaxaloon na ko moom jaaxaloon na ko moom waaw ndax lii nga xam ne noo ngi koy def am ñu yittewoo aw yoon lool te mënuñu koo am kenn nit ki nun baare ko kenn nit ci baare ko ci dëkk bii di tuuba loolu ndax warnu ci warnu koo càmbar ba loolu jóg fi am luñ fi bëgg a dugal loo xam ne dina jël doomi Touba yu bari ñu liggéey ci mu amal leen njariñ wala loo xam day satisfaire Touba kenn nit baare ko ndax lan ndax ña ko indi ak fa war a jaare wala da koo bëgg a indi woon wala nangam yooyu yooyu yooyu yooyu nañ ko développé yooyu na fi jóg gis nga am na koo xam ne du tox tuuba du naan du fi jaay boppam waaye ma ngay def yoo xam ni yooya ah, jàpp naa ne mu ëpp bàkkaar gis nga waa ji nga xam ni <sniffs> dafa naan du jëlul sàngara digganteem ak boroomam la rek li sàngara yi bon bon bon waaye waa ji eh, eh, waa fang lu mel ni ab service wala isin bu ñu war na indi Touba lo xam ñu bari mëna ci cee yow nga fang ko mbokk yi xolal xolal li nga mab xolal li nga mab te yépp no ngi koy dund diko gis mu yàgg lool bu ñu nee loolu xañ na moom dana musa dañi waaye bu nyewe génération ñëwee wala wala bu beneen entourage su genn kilifa ñëwee indi lu gën a puire loola mbokk yi sonn nañu sonn nañu sonn nañu nañ fexe ba dund rek gis nga nun suñuy état rawatina africain yi mbokk yi ngeen baal ñu fi ñu nekk ci suufam am karawaan buy romb noonu di jàll ci seen campagne yooyu ci lañ nekk waaye nun suñuy euh, euh, suñuy euh, suñuy état xam nga bu ñu munta jot ci kilifa gu mag gi daanaka duñ ko soxla sax pour jot ci moom waaye buñ jotee entourage am rek ba ñu am loxo bu mën a àgg ci moom seen bàmba daan seen bàmba daan nay maase loolu moom moom moo yàgg am ci diggante ñi ñuy woo wooye nitu état ak nitu diine ba ñu indee laïcité boo xam ni day ber ñii fële ber ñii rek loola dañ koy daal di fexe ba di ko am saa su ne buñ ko amee rek liñ bëggoon rek daanaka am nañ ko dara du leen ump foofa dara du leen ump foofa donte kenn ñoom day ñëw sax bokk ci entourage bi waaw fekk dara lu xew foofa rek yóbbu nañ ko fale ñu xam ko ala ko nag ginnaaw xam na loolu ñu xam ni njariñ seen njariñ fuñ nekk moo leen fa bàyyi état foo gis mu yóble mu mu fay yable du fa jóg njariñam moo fa nekk njariñam moo fa nekk li def ngir yàlla seen njariñ seen njariñ rek gisoo ko diggante réew ak réew foo mos a gis ñuy def ngir yàlla déedéet coopération yépp ay avantage rek lañ ci calculer ay signé ay convention ak yu mel ne yépp ay avantage lañ ci séntu rek ñu yi kon nun daal fi jamono nii lii nu jub nag ñu nu dimanche ci la ñuy ah, ah, fal nag ndaw yi war a nekk fale ci ah, assemblée bi xam naa bu ñu soppi woon tur wi def ko turu wolof buñ fa demee di wax lu réew mépp bokk ñu wax ko ci wolof dëgg la am na yeneen langue waaye nag wolof la ñëpp bokk dëgg di dégg quatre-vingt-dix pour cent yi dégg nañ ko xalaaku laal ah dafa lu gëm suñu bopp nag ñeme nag wane nag ni Sénégal am na lang boo xam ni lang de travail la boo xam ni ñëpp euh, naar bi bu ñëwee sax bala moo ubbi bitigam day dégg wolof guinéen bi bu ñëwee noonu malien bi noonu gis nga ndaw li ngay tànn na doon ndaw loo xëy doo ko tànn ba mu dem nag di wax naa man diw laa fi nekkal yow bàyyi na la population bi la tànnoon nag anañu anañu tey nga nekk ndawul benn parti di ko wax ci kaw ñëpp yi dégg bu la neexee nga ne sax man man man maay bàyyi faalu diw maay bàyyi faalu diw man ah wallahi alazim tooñ nga maam Cheikh de tooñ nga bàyyi faal waaw doo benn benn benn bàyyi faal ak bàyyi faal moo gën a jafe ak murit laa wax baay faal dëgg nag laa wax bàyyi faal pire moo gën a moo gën a metti ak murit bokkuñu sax ala kulli haalin kon moo mooy kii dund dëgg dëgg dëgg man laa yamliku shay'an wala yamliku shay'an al muridu man laa man laa yem shay'an wala yamliku shay'an murid mooy ki moomul dara waaye dara moomu ko Baay Faal dëgg dëgg loolu lay dund loolu dund kon mbokk yi nun daal noo ngi nii rek nekk ay iskale rek nekk morta fa weerukaay rek buñ ñu soxlaa jëfandikoo nu buñ noppee sànni nu juróomi at buñ ñëwaatee rek daal di yëkkatiwaat fóot bam set def parfum daal lay denc ci gaal gi fan yu néew buñ la soxlawaatee rek buñ noppee ci daal lay bàyyi waaw incha allah noo ko junjoon keroog ci ormay Touba benn àllarba dinañ ko waajal waxtaan ci wàllum ormay Touba ndax ormay Touba buñ koy waxee dañ koy boole waale. nun taalibe yi li nu war ci Touba lu ci bari nag dañ koo defagul alal di ñëw ci Touba nu planifier ko fexe ba xool awlawiyaat yi mooy yi am priorité ñu jiital yooyu ñu di ko def yi xëy mën nañ koo bàyyee gun nag en attendant am nañ ci lu doy ñu teg ko dem ci yi nga xam ni nag daanaka tàmbalee gunu ko wala ñor na xom xom xom ñu nekk ci yu mel noonu donte am ñu góor góorgóorlu bu baax a baax mbooloo yooyu dégg mbooloo yu fi yàggak ak yu bees waaye am na solo lool defee nit ñu sensé ko ko baax na màggal Tuubaa jot na sama mbokk isbu taraxe yi daal di togg ay añ def ko ci camion yi dem ci sancaan yi fu ñu teg fa bool ak baax bu jàllee ñu ni dépassé nañu un milliard ci màggal walla deux milliards ak a baax waaye doon na gën a baax màggal jub si ñu jël genn wàll ko ay nag ba mu desee semaine ñu dem ci sancaan yi xool boroom kër yu baree bari ñu bool leen ay nag nga xam ne ak ndawal wàcc na leen ah loolu kon dana baax lool dana baax lool lool waaye bis boobu ñëpp ay togg ah tax na daal defin yi daal léeg-léeg buñ ko dee xool dana war a gën a baax dana war a gën a baax kat waaye coow li daal moom leen gën a man as ci jëf waaw wax nañ ni maam Cheikh wax naa ñi fay wax bàyyi jëf fay wax bàyyi jëf wax nañ ñi daana wax lu mel noonu waaye daal bu xoolee ci ndaw yi nga xam ni ñoo fi nekkoon bilislam tàmbalee nag ba taxaw jamono Seydina Omar am na ci benn gouverneuram boo xam ni dañ ko kalaamee moom ni ko yow sa waa nga indi fii bis sàngam duñ ko gis bis sàngam duñ ko gis waaw Seydina Omar dem fa ni ko waaye yow ñu boole ak nit ñi nga am bis yo xamni ni doo ah, ah doo ñëw ah, duñ la gis ah ñew ci mbolo mi sax julli mbolo sax nangam nangam mu ne ko waw bis sangam bobu ñuy wax man maay liggey ligai kër ga ndax kiko doon liggey day sunyu mm, suñu suñu suñu bindan mi mu ne ko ha ah, mu ne ko waw bi sangam nak mu ne ko bi sangam bobu dama ci foot sama mbub ndax mbub la am dama koy foot dugg sama néeg du ma mën a génn fegg woowul allahu akbar xoolal lii rek ci ab gouverneur ab gouverneur waaw man ci gouverneur boo xam ne moom li li li li amir bi bi ñuy yóbbu asaka yi waa dëkk ba di ko séddale mu ñu gis ca turu gouverneur bi ci fuqaraaw yi ñi nga xam ni ñoom ñooy lekk asaka yi amir bi laaj ko ni ko yow lu xew dama vérifié ndekete gouverneur bi moom moom amul fàqir la miskin la boo xam ne yorul dara dara bu añee du reer rek te seere ay milliards ay milliards mu seere ko wax dëgg yàlla waaye yem ci sa salaire rek mbokk yi yem ci sa salaire am na loo xam ne salaire mënu ko mënta gaawe noonu mënta gaawe noonu waaw yi kon nan ragal yàlla am ni lañ waxante njaal been ga almaalu maalu laay wal iyaalu wal xalqu iyaalu llah kon alal ji yàllaa ko moom njaboot gi mooy njabootam kon jëlal ci alal ji jox ko njabootu yàlla kon ki gënal yàlla ci yéen mooy ki ëppal njabootam gi njariñ kooku moo gënal yàlla ci yéen waaw dëgg yàlla waaye ñu fal la nga maye sabar waaw yi da ngay maye sabar yow nga war a nga war a tiit jàq comme Omar ibn Abdul Aziz déedéet loolu xewul Sénégal ah nguur lekk ak naan la sa ndey ko liggéey buñ la fale ci saasi la wax ne sa ndey ko liggéey nga nga nga tàmbali nag sa ndey ko liggéey. ñeneen yi seen ndey dafa liggéeyul mbokk yi ku ndeyam liggéeyul amul képp ku sa nday nekk ak sa waajur wu góor liggéeyal na ko di ngeen bokk ci kër gi ku ayee dem togg ku war a fóot fóot mais mbir yi kay fan la nekk ndey ju nangu nangu daa am loxo yi nangu la jóobal dañ ko faram fàcce bis kon am na loo xam ni bu ñu ko dugal ci wàllu liggéeyu ndey waa ji toog yem ci saleeram am du jël lu moomul mais bu ñu demee ba ki nga xam ni moom euh, dafa seere alal état am na possibilité jël ci kenn da ko xam kooku di ci jël appelé ko nga ne ndeyam bu ko liggéey te boo demee ndeyam sax. liggéeyalul baayam dara ah waaw mbokk yi ngeen baal noo xam naa mbokk yi campagne daal ñoo ci ci suuf fi ma nekk nii rek mbokk ngeen xam naa noo ngi dañoo am ngànt léegi nii léegi di dinañ ñëwaat buñ ko mënee àggale ñu àggale ko incha allah waaye daal li ñuy xamle daal mooy bu dimanche jotee daal ñi nga xam ne dañoo war a génn seen kër dem sànni seen carte yam te dem ñëwaat toog seen kër bañ faa faat benn waxtu bañ fa xool xaraam bañ ko fa wax ki nga xam ni jàpp na ni moom du dem moom it toog këram tranquille am jàmb rek moom mooy am bu safaan ba amee nag képp koo xam ni yee na fitna fitna day yàlla rëbb na ko koye yee te lu weesu war nañ cee jànge war nañ cee jànge mooy ñii doon tojante bopp yóbbante police di tëjante ñenn ñoom ñoo ànd ñenn mel ni mbuloo suukar tey jii ñooy sànnante kàddu yu ñaaw di sànnante ay lacrymogène lacrymogène yooyu war na noo yee waaye population boo xam ne du ñu yeewu mukk mukk muk mukk mukk mukk lu tax ak ku ci mën a dugg ak nu ak ku ko mën a jur ak kum mën a doon population bi ñoom war nañoo yeewu rek war nañoo yeewu kat nit yu baax ngi fi nit yu sell yoo xam ni du ñu soppeeku mukk mukk mukk lu ñu wax lu juyoo ak li ñu waroon wax mukk si Cheikh Ahmad Tidiane si radiallahu anhu waxan na lu am solo bi ñu yëngu ci politique dafa waxoon ni waaw wax leen ma politique bu fekkee dafa xaram bu ngeen ma ko waxee nii dafa xaraam indi ay dalil ma ba su fekkee léegi dafa baax ah ah ma continue ndax lu baax ñëpp ko war a def su fekkee dafa am lu baax am lu bon xamee naa lu baax ak lu bon man seex moom xakim la xam nga xakim la ba tax na position yu mel noonu yi sëñ seex doon jël euh, mu am njeexit nga xam ni gisuñu fenn fu mu jaayee diinam wala ngorom yooyu yooyu position yooyu ñu bëgg mbokk yi am na ay nit yu am dignité yooyu yal na yàlla dëgëral leen ja ba ñu mën ba ñu mën lu mel noonu alakulaali waaw benn mbokk di ma laaj léegi mu ni ndax xisa boobu ñuy wax ni euh, euh, Sëñ Tuubaa moo ko wax ci wàllu baatu politique dëgg la man ko loolu de noo ko gis na doon ñëpp daal gis nañ kayit wi ba nu xàmmee koog léegi ñuy wax ni Sëñ Tuubaa moo wax ni Bagi gi mooy baidun min allahi mooy sori yàlla laam gi mooy laanatullahi mooy rëbbum yàlla taa gi mooy taariku diinullahi kaaf gi mooy kaafiru billahi waaye nag ban politique la suñ tuwaay bu boobaa ban politique ok parce que bu bu dee loolu rek ku Sénégal joxañ ni diw politique sen la nga nga nga nga jox ko euh, ñeenti anwaan yii yow yaa ngi yaa ngi tooñ waaye kon dañuy jëkk a lijjanti ban politique la Sëñ Tuubaa bu fekkee wax wax ji nu méngoole ko ak ku yore ñeenti jëf yii te di ko def daal kon boo tuddee politicien jombul yow la suñ bi wax waaye koo xam ni kat yii yëroo ci benn melokaan doo def jëf yi yuy niroog ak ku weddi yàlla ak ku bàyyi diine ak ku yàlla rëbb ak ku sari yàlla yow boo dee politique kenn du la wooyee politicien bu mel noonu kon loolu lu ñuy jàngat rek waaye yàgg nañ koo gis kayit woowu yàgg nañ ko am ala ko xaalin waaw yal na yàlla dëgëral daal ba ah nu am ay njiit yoo xam ne ci wàll yépp ci wàll yëpp laa wax nag ndax fu ci nekk mangi nañ fa ay njiit wax dëgg yàlla muy ci côté diini ji mu ah, muy ci côté ah, côté côté état waaw état dëgg yàlla liñ bëgg ci ñoom ba léegi gisaguñu ko ci côté diine bi suñuy njiit ah ci ñiñ ko sañ wax day wax dëgg yàlla léegi liñ manqué bari na léegi ci ci ci ci tem côté boobu lool mooy liñ nu waral di din ko sant ak diñu ko tere ba pare jiitu ca mel noona ak yi nga xam ni war nañ ko amal tudd naa ci léegi Tuubaa gi nga xam ni baaxoon na bërëb boo xam ni duna ci turu kenn ci turu Cheikh Ahmad Bamba lay nekk nii daari kaamil mel lay mel muy jaame bu mag boo xam ni waxuma la Sénégal sax waaye doom yi jóge ci yeneen réewu Afrique yi di ñëw senegal di fi jàng si ci université Cheikh Anta Diop bu boobaat bu dee côté arab moo yëkk ci nga man fii ñëw ñaata doom ñooy dem Tunisie yi fa jànge ginaaw bu ñu amee bac fii ñii dem murate Mauritanie ñii dem Koweït ñii dem nangam ñii dem nangam ku ci rëcc nag ba dem Arabie Saoudite ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a gaaw ci détourné donte nag ñu bari jaar nañ fa ma xam leen ñu suñuy wëlëre ba ñëwee gën a dund seenu tasawuf waaye am na ñu bari ñu jaare ñoo xam ni déwee nañ leen ñoom it loole nag bokk na ci li koy li fang mooy installé fii ci tuubaa barab bi am na fi xaalis bi am na fi nit ñi bëgg nañ ko suñ Muntaxa soññee la ci def ci ay jéego yu yu am solo ay jumbul mo wax li gaay yi wax rek mooy jumbul ah, dat ba jotagul xañ na xañ na waaye noo ngi ñaan suñu borom defal nu tawfeex defal nu tawfeex di nuyu mbokk yi ànd na ñun ñëpp ñu ngi la di nuyu sëñ Ahmad Mbacke Touré ah, dafa naa ak sëriñ sëriñ mbay sëriñ mbay sekk sëñ mustapha ñu ngi lay nuyu bu baax baax mustapha Mbacke Gaawaan ak sëriñ Ahma sëñ Abidine sëñ Ousmane Seck sëñ Abdou Assis Ndiaye ak Oustaz Cheikh Lo Mudu Mbàkke Touré suñu xaarim loo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Murtada Rafaa'i yi suñu Moustapha Guèye euh, suñu Ababacar suñu Daara ñu ngi leen di nuyu euh, ak mbooleem Abdoulaat yi ne ci biir barab bi ñu leen di beral nuyu yéen ñëpp ak soxna yi nga xam ne duñ dugg waaye léeg-léeg soxna woola ni la ci daara yi sàngam ci laa dégg sa waxtaan nga xam ni kon daara ji am nay soxna doon te bariwul xam naa kon noo ngi leen di dañ doon rek lu ñëw ci xel mi nu wax rek ndax ñàkk koo waajal ndax amoon benn fursa bu gàtt ñu ne nañ ko exploiter kon loolu daal di indi woon tey rek ba ëllëg ak jàmm incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar waa daal ji yëpp di nuyu ba Habib Gueye bu baax di rafet bu waxtaan wi waxtaan wu mata waxtaanee la ci jamono eh, nga yaatal ci lu bare bare bare bare bare lu mata xam lo xamni jul jullit ñëpp war nañ ka jàpp xel bu baaxa baax muy walu doxino aduna jamono ji na ci liñ jublu muy walu election yi eh, dañu ko ci tombu yu bare bare bare bare wax ko ci na fi muy jëkke rek ci jangal yi ma ci dolli rek xeyna sax wax matale na waye eh, ñu dolli suñu jangal rek <coughs> liñ jëgé ci waxtaan wi eh, muy ñëk muy doxilun aduna ginaaw ba nga xamé ni fexé nañ ba ñun binyo ñi yaasuf yaafus ba tuba bi ñu imposé ñu liñu bëgg ñom lolu sax fi ba nga xam ne menen sañu duñ ka bañ di ci dox euh, ñom euh, la nga xam ne moom indi ñom seen bop dem nañ ba xamni sax du yoon wax euh, ndax fi tan ni lu melni finance islamique tubaab bi fi tan ni nii bari bare réew yu bari bari bare dañ koy jëm di ko jëm habité seen réew di wax ni lool moy finance bi gën lool day wane lepp li l'islam indi rek moy li gën moy li gën waye ñom ngir mëna dundu dund seen dund ñoom kese te dund du téggu ci ak jup moo tax ñu jël yoon wi ñu jël fas yéene ko wuñ ko wàcc ndax boo xoolee fii coow la ni mu baree ci sëriñ sëriñ bu poli sëriñ bu politique li ci ëpp politiciens yi ñoo ko indi li tax ñu indi ko mooy bëgg bëgg dugal rek ndax njubadi gi ñu nekk bu fekkee ne am nañu baax ñu dugg ci politique bi bu fee jëlee loolu ñoom seen njubadi googu dootuñ mën a dund nañ daan dundee ndax dañ daan dund ci askan wi di dundee xaalis askan wi te duñ ko teg fenn lu dul ci doole te lislaam moom xamul borom doole xamul sëriñ nag déedéet lislaam ay luwaam moom ñëpp la ci yemale ku def ak jubadi rek day daal teg ci aw yoon loolu mooy li waaw bu ko defee nag seen jubadi googu ñuy dund di dund ci kaw nit ñi bëgguñ mu daj moo tax képp ku baax ko jóg ni dangay dugg ci politique bu ci indi lu baax rek ñu teg la ay coono yu mata yu baree bari bari sëñ Seex moom ngay wax Seex eh, des Al Maxtum gis nañ lim jaar ci kaso am nañ élection yoo xam ne nañ moo ko ñu sàcc ko bañ bañ ba lépp rek bëgg li ñu nekk sax rek moo tax ñuy ñu teg yooyu loolu na faaw jullit ñi xam ko waaye daa mel ni dese nañ kaa xam ndax eh, li ko waral mooy boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj réew mi dañ nekk fi depuis cent année ba ñu amee ne waxee ne dañ am indépendance donte amuñu indépendance sax indépendance ci ay ci la nekk ak ak kilamañ ndax lépp lu fi dox daanaka tubaab yeggee doxal ñoom ñoo fi falu di ci folliku ñooy jël réew mi jàpp ko en di séddoo ku lekk ba sonn jox sa moroom daanaka ñoom ñi rek ñoo fi nekk boobu ba léegi ñoo ñooy awante réew mi rek amul dara lu bees lu fi nekk. te te li li lay wan ni seen xalaat bi ñu teg baaxul politique bi ñu teg baaxul yoon wi ñu tëral baaxul moo di eh, ni nga xam ne moom la réew mi doxee boobu ba tey noonu lay doxee te mënut am benn soppiku lépp lu fi leen bañ rek tey la gën a waalu gën a aay muy ak jubati yaay jukko yu bon waaye di am réew moo xam ni développé wul ci benn anam jëmul jëmul kanam ci benn anam saa boo yeewoo ak ñàkk di fi gën a sax ñàkk liggéey di fi gën a sax te teewul ñii di xëccoo réew mi ñoo ñëwaat rek saa bu ne bu ñëwee laajaat ñu joxaat leen ko kon ñi leen koy jox ñan lañ est-ce que xam nañ lu ci leen responsabilité est-ce que yeewu nañ ci seenum réew loolu nag day wane ni yeewu gi des na moom beneen mooy euh, ñu nekk ay julit ñi nga xam ne ñooy falu donte ay julit lañ lañ wax ci liñ wax waaye teewul lu baree bari mi ngi ci réew mi loo xam l'islam dakaa bañ ba bañ ba tëdd ca naaj ba loo naan bañ ba tëdd ca naaj la ka l'islam bañ muy ak ngóor jigéen nag yenn programme yi daw ci télé yi nga xam lu bon lu ne lañ ciy génne ak yu ni mel ak ñàkk bu yar bi nekk ci xale yi dañu xam li ko waral waaye jëmuñ ci dara waxtu yi moom day day fekk doo mën a wokkaal lu bari waaye liñ ci mënoon indi bari na waaye daal euh, li may tënk daal mooy ku ne daal war nga jël ses responsabilité ndax ensemble bi nga xam ne moom la ñu bëgg woote député yi nga xam ne ñoo ñoo bëgg a fal ñu ci baree bari ñoo fi nekkoon te ba ensemble bi jeex lu wax dara baaxu ci. député yi fi nekk amuñu woon benn liggéey burul tàccu a woote jàll ay ay loi yi nga xam ni président moo bañu àndal moo indi ak nelaw tewul weeru day ñu fayeeku ñoom ñëpp loolu lañu wax ni assemblée bi ni mu nekkee woon ba noppi <coughs> ñu ñëw taxawaat ni ni ñi nañ leen joxaat assemblée bi loolu xel nangu ko koo xam ne yow yaa ne assemblée bi baaxut tey fa nga nekkoon tey nga ñëwaat nañ la nañ la fa yóbbuwaat loolu xel nangu loolu kenn xamul lu mu doon teewul ñooy ñooy faluwaat rek maanaam bis bi nga gënee def lu bon bis nga bi nga gën a ñàkk liggéey boo demee te lañ léegi gën a joxaat bona bi ñu ne sénégalais yeew nañ ci lan lañ yeew politiciens yi rek ñooy wax sénégalais yeew nañ ndax lan yeew nañ ci ci yeew nañ ci ñoom mooy lan euh, ku dàq wax wax lu dëgg ku dàq wax wax safaan ku gën a rëy làmmañ ku gën a dàq dëlee te doo def li ngay dëlee yow la ñuy fal loolu ci loolu la yeew di waaye yeewuñ xam ni nag ñii ñii nii di politiciens yi amuñ fu njariñ dañu leen fa war a jëlee képp ku fi nekk année soixante ba léegi boo dootoo fala benn benn yoon ci réew mi ndax yow yow ñoom wane nañ ni ñu man dañoo tële dañoo tële rawate na ñoom doom ñi nga xam ne ñoo génne ci école yi léegi te ñoo xool ñi nga xam ne dañu leen a yar jàngal a falati ñi nga xam ne dañu leen a jàngal rek te yaruñu leen ñu yàq suñu alal réew mi waaye déedéet buñ ko def saa buñ ñëwee faluwaat doo xam tax lii lu mu doon da nga naan ñii dañoo liggéey sénégalais wala lan ndax doo xam lu mu doon waaw xanaa rek kon jamono day xaw a xat da nekk ci barabu liggéeykaay bi ñu jéxal rek wax ci walu politique bi nga xam sëriñ si ñi ci sobu euh di wax ni rek man day wax dëgg politique ñi ci ni ko gaay gisé gisee ma du gisé non dé de ñëw rek ni politique baaxul taxaw fële te lu réew mi doxut nga jog di kaas déet dama ko def ndax euh, ndax kon yow mom képp ko xam dañi sama yow nekku ci ni réew mi doxé lu fi yàqu yow la ta dara waro kaas dara ndax réew mi mo dëgg ci réew mi lu toll ni ab président lu toll ni ay député di doxal réew mi nga ni sama yoon nekku ci lool lool lool lool lool du yoon te te loolu bokk na ci li tax politiciens yam ñu mooy ñi ëpp ci nit ñi dañoo lijjantiwul seenum réew ni muy doxee te dañ kaa war a lijjanti ndax doone politique bi ñi ci nekk dañoo bon rek sama yoon nekk ci déedéet man de du ma noonu moo bi nga xam ne ni sëriñ si ñu ngi dugg ci politique man bañu ma ko xanaa kay dañu war a wax mooy sëriñ si bi dugg ci politique bu dewee nekk ci politique ba dafa yóbbaale jukkay sëriñ yóbbaale fa jukkay diine ba nga xam ni ñam fa fekk duñ baax la te it bu mu politiquee diine ji bu mu jël turu diine di ko politiquee bu mu jël tamit tour tarix ba mu bokk di ko politiqué loolu rek man moom wax dëgg dëgg dëgg amul lu ma koy reproché na fexe ba jub daal ga mu wanee woon ci nga xam ne moom xam ci ab sëriñ bu demee ci politique bi fa nekkee naka réew tax a jóg boobaa wax dëgg dara nekku ci la muy def nag li bon kay mooy dem nekk ci politique ba noppi waa politique ba soppi la ba nga mujj mel ni ñëpp bu boobaa nag loo dégg yow la loolu nag man man foofa laay euh, bañee ànd ak euh, sëriñ buy politique waaye bu bu dee sëriñ buy politique te nekk fa mu war a nekk rek euh, moom dara nekk ci ni ngay joxee exemple allahu waahidun ki dama wax allahu waahidun eh, muy eh, Cheikh Bamba Cheikh Abdoulahi moom boo xoolee caravane am alxuraan la daan teg wala ay xasida kuy wër di campagne di wax allahu waahidun ndeysaan waaye lu néew ñoo koy topp nga gis ni Sénégal ay julli lañu waaye kenn xamul luñ bëgg nga xam ne kooku ay julli ju mat sëkk lay woote di woote lislaam waaye duñ ko topp ñun daal ki ñu mën a topp mooy kiy kàcc di wax lu dëgg kiy dële loo xam ne leer nañ du ko def waaye ki nga xam daa ñëw ci lu leer nañ di wax dëgg duñ la topp duñ la faale duñ la wooteel doo falu doo am ay député loolu nag fii yëg fii ci soppiku ci loolu dara du fi du fi jàpp képp ku indi lislaam duñ la faale kon bu boobaa ku ñëw rek moom da ngay daal di teg fële lislaam nag parce que indi mel ni ñëpp ngir mën a falu euh, yàlla naka yàlla yërëm waaye moom lu baax la indi woon ndax dangaa tegoon ci aw yoon rek wax dëgg la mu gëm mu indi ko ci politique bi te mooy lislaam la gëm mu indi lislaam ci politique bi te loolu lu baax la bu doon bu doon sëriñ sépp buñ dugg ci politique noonu la ñuy def kon kenn du leen wax dara waaye li bon mooy ñi ñu fi gis ñu njëkk nga xam ne ñoo dugg ci politique bi ñi fi gis ñëpp ñoo ngi ñëpp a yem bañ nekk ci politique bi léegi indi fi dara lu bees fi liñ fi fekkoon rek lañ fi bàyyi te mooy wax ànd ak ñëpp ci li ci ci lépp rek mooy politique boom sa bopp la ñor xaalis ngay wut li may wax rek député moom daa neex lool moo wax ñëpp soobu ci xam nga ni 47 liste 47 liste jaaduwul ci réew mu toll ni Sénégal 47 liste jaaduwul ci li li ko waral nag mooy dem ci ab barab boo xam ni da toog climatiseur yi di la ëpp ngay wax rek ak a tàccu ak a nelaw bu la neexee ñëw ñu jox la oto jox la carburant jox la crédit di la fay weer de ki gën a néew li muy fayeeku mooy un million trois cent mooy ki gën a néew li muy fayeeku nga dem bu weer deewee nga dem def la neex loolu dafa neex lool moo tax ñëpp soobu ci ñëpp soobu ci moom mooy tam xëy na du ñàkk nag ñoo xam ne xam naa ne ñoo xam ne ñii moom boo leen xamee ba léegi moom ci ab na xam kon leer na ma ni kon li tax ñu soobu ci mooy defar Sénégal waaye ñi ci ëpp rawatina politiciens yi politiciens yi moom kenn waru leen wooteel ñoo yàq réew mi ken war leen wotel bu boobaa nak ah xamna dal neexna de mom 1 million 300 1 million 500 ah ngay nelaw ak a ak wax lu am njëriñ amul njëriñ crédit 4 4 carburant way lolou dafa neex lolou mo dafa neex mo waral 47 liste yi de lolou do nga ko waral way du du mi bu do réew mi rek jëru 47 liste député yi bari tam jëru ko won li waron am mooy département bu ne ña fa dëkk nañ tànn seen député yi bopp loolu moo waroon am waaye lu liste nationale ku nekk ku nekk Dakar dëkk fa fa liggéey ku nekk Mbour di ko loolu mooy la kon xam naa damay jeexal rek euh, fi nga jeexalee Baye Habib Gaye ci wàllu baatu politique yooyu nga indi te sëriñ bi firee woon ko loolu nga firee noonu euh, man de jàpp naa ni mën naa nekk waxi sëriñ bi ndax defe naa sëriñ Alaaji Mbàkke indi na ko sax waaye li ma jàpp mooy sëriñ moom saa bu waxee rek la nga jublu la la lay jubluwaay bi damaa jàpp mooy politique bi nekk Sénégal moom ku ne xam ne loo ci am. ñett yooyu nga njëkk wax yëpp am na ñoo xam sax dañ daan dagg kufur minallaahi ndax dañ daan loo ndax dañ daan dis ci moom man leen ah kay ndax politiciens yi ñoo ci dàq ñu ku leen dàq xërëm amul ku leen dàq xërëm amul daanaka eh, lu ne la def ngir falu lu ne lu ne la ñuy def sulli bopp néew yeeg ray puuna yeeg ñi di julli ci dere xajak ak bakken yi nga xam day rot ñu leen tay rek lépp daanaka ñoom la loo fi gis lu bon rek jamono élection boo moytu ñoom lay doon lu waral bu police bu campagne amee ñu naan poney nañ leen protesté poney nañ leen protesté ah xanaa ay jullit campagne ñu lu ci wut ay poney wut wut lu waral ñuy suli ay bopp néew xanaa du ay jullit ñooy campagne lu ci ay suli bopp néew wut kon kay kutum mi na laay ngoog kon loolu politique bu bon bi moom kon xam nañ baat yooyu moo ci nekk waaye ki nga xam daa jóg ngir def politique bi nga xam ni moom la Omar Ibn Abdul Aziz doon def Omar Ibn Khattab doon ko def gaa yi fi jaar yëpp def ko kooku wax dëgg baat yooyu moom du yey ci moom loolu daal laa ci doon dolliwaat euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه سرين سيخ جلجف جلجف سرين سيخ لوم جلجف جلجف تيسا كونتربيشن بي أمنا سرى ترب ترب ترب ترب لي موي كونتربيه ناخ دا دا دا أم يو خمني كيكو واخ واخ ناكو بنابي كيكو ديغلو ناك أم ينن يمتلو لي يو خمني لي غنى ياتل واحدي وتخنا دغ يالا دال سانت نان بو باخ باخ باخ باخ تي تعليح بيغا ديف macha allah macha allah naa du ñàkk léeg-léeg benn àllarba ma woo la ne la tey jii na nga def loolu moom nanga ko xam moom jërëjëf jërëjëf.